ca noone itam jëm rek ci compte yi moo maanaam ñu saytuwaat ko bu baax a baax mën na wax ni itam nan la ñu def rek ba contacter nit ñi nga xam ni jamono ji ñoome seen numéro dinañ ko mën a gis ak seen adresse email ci ay liste yoo xam ni bu ñu bindee seen tur dinañu mën a xam kan moom moom bi le téléphone ak profilam maanaam la muy liggéey ak ku mu doon ndax loole fi mu nekk nii moom lañu rek daal di bëgg beneen règle bi itam dañu rek gën a renforcer wàllu sécurité bi jëm ci compte Facebook yi ak itam lu jëm ci wàllu sécurité supplémentaire yoo xam ni compte yi daal di nañ koy am mu mel ni kon war nañu mën a xoolaat bu baax a baax rek suñu téléphone yi lee ak message yi nga xam ni moom la ñuy envoyé ak nañuy connecté wee ndax nag am na nit ñoo xam ni fu ñu nekk nii ñoom dañu rekk bëgg dugal nit ñi rek wala rek bëgg def ay càcc yi kon lolé war nañ ci bàyyi xel bu baaxa baax ndax ni ñuy def sax ba mucc ci luñu mel moy rek daal di gëna fessel suñu walu identification manam rek neub li nga xam rek ñun ñoko mom te muy ay données personnelles ndax lolé suñ ko deful rek fi mu nekk ni ñu bari itam mën nañu jaar ci réseau yi rek daal di lay yakal rawati na nak ci sa walu image.